واغلط بها واغلط مغلطي يا ربي يا إذا كتابك معي أجعل يا من له به إلهي يركون أنت الذي قلت مصائب السعاد أهلي ولي مطلقين وصحاب نفيت فقري بسواك أبدا يا خير مؤمن بابتغاء المبتداء سيتزيك يومي كما سيتدي به محب المحكمات wut yow golaam falu di buur jóge nga yow faw fi suuf doo dem yow mukk fi suuf sabe nga doo sabe nga soof ñam nga wutul nga bëgg a fuur sant nga yow te santulu sopp nga it te soppulu topp nga it te toppulu yaaram bi jëf la jëfi góor yaa mën a sës rek ci buur yaa mën a saytu gaay buur dëggal nga buur ak gaay buur ñëpp a ngi bëgg yow doxul juróom biram de aw ndigal di wut ngaram di boole guddee di bëccëg jumbu ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dañoo te dem na it lu kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg ku jógi daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war sa xarit doo ko jot fa mu ne yàlla ko fa teg ku wax lu dul amul morom te fam biram jébbal ko moom aw ndigalam def ko dorom yàq na fe rubeete kan yàlla nu boole nu yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy digalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg lu dul digal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko def boppul digalam kem loo defal na sab sëriñ am lu na toll ci njariñ loo defal lu na sab sëriñ boo ko bëggee doo ko am ab tere teg nekkul dara waaye sëñ bu dara doonte jaayam ma dara lii ma ta xam te ma ta gëm bu jóg ma dem fi dara tan te yóbbu woo dara bu fekk def sëriñ contentement bu rëy ci bis bu màgg bi bis bu tedd bi di bisub sant ak fàttaliku ak ñaanal ku tedd ka Serigne Saliou sunu mag yi di ko taxawal muy waa daayira Mawaay bu naafe ñu ànd ci ak seen ay rakk di waa daayira raw du rayaayin fii ci tali bees gis ngeen waañ bi ni mu demee yàq nan añ yi servi nan def yëpp te yëpp maire ñoo ci jàpp bu nekkutoon ak ñoom dara du baax dañ leen sant di leen gërëm di sant suñuy jëwrin ku ci mel ne soxna Maane soxna Silla maam góor ñoom gañ ndax ñoom ñëpp danoo jël lépp takk suñu loxo. لك به يا سيدي يا سنادرا بك فأنت خير خير الأنام نويت شكرا متوجها ولكن مستقبلا عن الديات المطالعا قائدة عبدا قديما قادما للقادم الوجوه والمصائب بالخير والجد والمثال سمع على التالي وهو أتاه يقصد مطالعة تذله للخالة الرجال والمسائل بالخير والجد والمثال وآله وطعمه وحبيه فضلي عمل الثاني نقبلي وآله وطعمه وحبيه أتت بدينا كرة القدم عند زفاني إلى المتين إلا فتوان فأرقدائي حسنانا وحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عشرة وخير سور سبقت غيري إلى الجنان في dëkk Cheikhul Khadim la boo xam ne bi mu fiy ñëw am na dëkk yu bari ci réew mi yoo xam ne am na courant am na ndox am am na lépp waaye mboy yi dëkk yooyu yëpp fekk na suñu borom ni ko adduna bi ni mu toll ñetti barab laa ci gën a fonk benn bi def naa ko muy lëkk tëmb kano benn bi def naa ko muy nga jël sama naa wala bi nag may naa la ko fu umm na ñu ko def ko muy Tuuba fekk gis na turnoo woy a ko jàng ngeen ko bi jaay xëy na loolu dañ naan waaye bu mu ñëwee fii am na bis bu si seen waxtaan ñuy nodd timis xam nga noonu jàkka yi di noddandoo si seen waxtaan bi nii nodd yi jibe de bu si biir dënd baatu gaynde yi ñuy gën jibe ñu ngi gën sëriñ bi. booba booba ñeenteel mënoo ko dox te te boo te moo bant wala boo jë boo wële ko nga daan dox lënd bu bëri ak berab yi ak ñi xam ne kenn mu taw ko ñàkk mu sëñ bi ne fii. néew Tuubaa yi di ko wut ba xataa asrax alayhi am leer bu mel xas si kanam moom. ba tax xajara ba xaajal lu mu ñu leer gi leer naan la si yàlla def foo gisee leer ga nag ba fay Tuubaa mu ñëw ba foofu nag fàkk fa wàññi ñax mi ak ak bant yeeg lépp ba am fu mu teg dara moom sëñ bi mu taxaw fa nag digg fa ay rakkaat bi mu jullee ba sa nag su ma demee dëkk baa nga noonu mu ne ko nag yàlla tey kon sa gàllanaa fii. نستطيع التمني بطيق يا كريم لك فأكد الإكرام اليد نويت أن أخدمه في طوبى فتكسر السرور والخطوبة ثم من يقول léegi dëkk baa ngoog léegi nag loo bëgg ci dëkk bi ñaan ma ko lépp lu ci gëdul ñaan ma ko ma ma dàqal waaye ñoo ko motor bi ñëw ñoo ko raay bi ñëw ñoo ko courant bi ñëw ñoo ko ndox bi ñëw danaka habli itamati ma tuhibbu wa tartadi fi maskani Tuuba allati laka tansi dëkk bi daal yàlla lépp lu ko sa gërëm lépp luy bëgg yow yàlla da nga laa bëgg sax ci dëkk bi. والعلم والدين والدار الارتقاء وجنة للسالك المريد وجنة الهاتك المريد ومن فعل لكل هذا المسلم ومن فعل كل هذا المدين لغويتها سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي والله يسجد بعد كده بآدم أنا من كفرين أنت من يكون معك سمو الله daa wax ni képp koo xam ne yaakaar naa dajeeg moom ëllëg na nga ko jaamu te bañ ko bokkaale tey jëf aw yiw sëñ Tuubaa ne waaw waaye sa borom day li mu mën a muñ ci bokkaale mu ëpp mën ma ko jëm te mooy di ko suñu bu demee sëñ Abdou Karim Touré mos na koy defal muy jàpp ba yàgg sëñ Tuubaa dañ ne ko ah Abdou Karim ni ko Mbàkke mu ne ko xanaa tuuti bii may tudd li tudd keneen ndax xëy na la mu ne ko waaw Mbàkke jërëjëf mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko mu ne rek bu demee ba kër gi di jënd wax ji di ñëw bu ñu demee ba kenn di génn wax ji di jeex kon fii ci àdduna la ñu tudd kenn di ko dendaleeg Sëriñ Tuubaa waaye ba léegi yow yaa moom kenn rek nit muy si Amadou Xadim Xadim Mustafa loolu it dafa xam bu baax te loolu li ko war li mu def li mu def li mu am koy tëkkaleeg Sëriñ Tuubaa xool sa xel mu gàtt rek koy tëkkaleeg Sëriñ Tuubaa xool li Sëriñ Tuubaa def xool li Sëriñ Tuubaa def xoolal li Sëriñ Tuubaa li li li natt yi nekk Sëriñ Tuubaa xool li Sëriñ Tuubaa muñ li may faral di wax ni képp ku ñuy dendale Sëriñ Tuubaa sa waay nax na la baax na ko saa suñu ko saaka dañuy commencé di bàmba sa baañ commencé di bàmba sa baañ sa sa sa mbaay lépp bi dugal ànd ak sa jëmm te dem la mar na del suñu gis donc sëriñ si yéen a ngi nii tey ngeen xëy daje bis naw ñëw def nii ñu def jëbal ko seen i kuus kon nag mu ne day yokk barke di guloo sëg day guddal fan di fekk loola kër kër rek dafa may dina ko kon Sëriñ Tuubaa kenn du kon nag nañu xam li ñu Sëriñ Tuubaa defal nañu xam li Sëriñ Tuubaa toll ci moom nañu xam li Sëriñ Tuubaa yi doon daj li suñu dëgg yi damay mën a di wax ne Sëriñ Tuubaa bu doon jëmmam dong du sonn ndax moo waxal boppam ne laata muy jëm ci géej fu góor yàlla di àgg àgg laata muy jóge fii di dem ci géej fu góor yàlla di àgg àgg na lu góor yàlla di am am na moo ko waxal boppam nee na laata muy jëm ci géej am naa lu ma doy sëkk te fu góor yàlla di àgg àgg sëñ Moussa Ka ni ko maqaamaati Jeylaani moo ci tey kuur ci sa gaw nga ko làqu làqu koo xam ne bi ngay toll ci raam nga amee xam-xam sa bu xaari Jeylaani yaay kan lan moo taxoon ka mu ne suñ jëm yi teg ko ñoom tukki tukki bu sori la boo xam ne am ko kenn mën na toog fenn di ñaan nga gis dina am kenn mu toog dina am naan loolu la ñu doon suñu tubaab yi def ko doy war a jox ni yii rek war naa ñu ñu gën a war def suñu tubaab te jàpp ko di koo xam ne yow génne na ne sa dëkk xam na say mbokk xam na say njaboot lépp la boo xam ne gisoon sa menn mbokk ba noppi saa suñu xëyee natt bu ñu la teg boo liggéey natt ba ñu la teg boo gën a tax suñ faam ak maanaam suñ dugal na def di ko wax di ko togg comme ni ñu toggee nga wax te ko loolu la ko gën a métti dugal ci ba ci maanaam taal ab taal ko taal ab si ba mu ba mu gas am pax ba mu xool ñu taal ko ba mu taal ni kenn mu dugal ci suñu tubaab yeew nañ ko ci ci ci ci poto ba mu dëgër mu ci sa ñett suñu waa koo xam bopp kenn ku nekk ñu dàkk loolu ak cër dégg nga histoire ren bi su a nee un deux trois ne ñëpp a la suñu tubaab nee na keroog gisuma kenn sama ginnaaw ñu yeew ko ba mu dëgër ñu ci poto biñ joxee ordre bi ñoom ñëpp ñu tiiree kenn ku nekk sa bal daawul ñu dal sa dënn nga jaar te suñu sëñ Tuubaa jokkat tënku mu dellu ginnaaw benn keroog yan xaalis islam moo fekk fan la yow fekk bu ñu nam yegg dañu am lu mën ko bàkk na maas kon am lu mën ko bàkk na mën a liggéey loolu ko mos a am benn keroog bañ ci dugalee ci mën nga xam ne dañoo gas ba mu xool taal ak suñ dugal ci suñu toit ko ne ne keroog soo la jaar day ma yemul sax boo ko fekk ci mën googee jàpp ci ñaari ma ba dindi ko lu ko amul dama liggéey si borom. kon loolu sax loolu. dara dara tënk loolu suñu jëmm waaye bëgg na xëcc ba liggéey rek moo tax sëñ Tuubaa benn yoon la ma sa woo suñu borom benn yoon la ma sa woo suñu borom te boobu mooy keroog fii ci Bàkki Bay bi tubaab yi joxee ordre ñu ñëw di di yor seen i xeejal seen i kii di dagg seen i sëñ Tuubaa yi ak di benn gaal keroog sëñ Tuubaa yi ñu ne xibaar bi woo suñu borom yaa maa di jël mucc yaa ma jël am ko keroog benn naar moo nekk ci wetu sëñ Tuubaa di jàng ci dëgg bi maa ngi ko waaye keroog sëñ Tuubaa nee na saa borom daa def ordre daal li malaaka yi wuyu leen Ahmadou Khadim keroog ba yonent bi jàppalee tabada na ngeen ko defoon tey jii Ahmadou Khadim noonu laa bëgg ngeen defal daal ne ko lu mu wax nii pour mu leen woo ni ngeen ko wuyu sëñ Tuubaa ne yaa Maalik al-mulki yaa man jalla an xooli sëñ Tuubaa ne nag sax mu dekk irham jami al wara neen bu téemee daa gis asma wax ni ko dañ serkali ko moo xam ne bu bàyyee mu faagaagal ñëpp sëñ Tuubaa doo gën xilwaa ni irham jami al wara yaa xam ne looloo musal gaay kenn musal fee yéen maa ne loolu ba liggéeyam dafa am fay gi vraiment daal di loolu loolu loolu loolu la kooku daal jaayante gi mu jaayante borom ba yàlla fay ko nga xam ne suñu tubaab ful ak jom ak ngor ku koy roy kenn suñu tubaab ko waree waaye kenn mënu ko mënu ko def ndax fi mu ne ji mooy teroog bi ko suñu borom nee fay nee na yow ci wàllu sax damay fay dama fay dama fay bàyyi ko amul kan dem ci amul suñu borom bi ñu jeex ñu fay na ko. dama ko mën a bokk koo xam ni liñ jafewoon ñëpp daal suñu borom arrêté ni suñu borom suñu doy nee na li gars yi doon wut te mënuñ koo gis muy ak xeetu Mouhamed yi moom la ma saaboon ko mu fekk ci ndoowaan bi waaye ñun karatu naa wax dëgg la nee na yàlla ci daa gëm ay bët waaye xam sëñ Tuubaa nee na keroog laa ko yee tegi antal karim antal xadim dara ko dim fi gëstu naay anta yow rasulaay alkar yaa ji te ne yegg ci benn jàkkaarloo ko mën ko antal xadim anta yow rasulaay alkar yi mu jaay sama patron anta yow rasulaay alkar yow naa dugg anta yow rasul anta yow rasulaay alkar yi mu jaay ji te dal ko waaye antal xadim maa dem sëñ bi daal maa dugg àll bi ne liggéey nga bëgg suñ ko waxee keroog yéen a ngi ko contravé si ñun ñu ko déedéet def na diiru jamono ku diiru dana sama sanaa yi teg ci gerte. li leen asamaan suuf nga ñaata ba dem ci gerte sàmm di na ngaan ko xalaat ak suuf na abdallah bil fadala innal kawaakiba li fiya sinima bil mustafa xayru xalqillahi manzilatan la mujahid ahwa kula wala xar raamal wala nayna fadli musra ayna lahu wal fadlu ayna rasulillahi xaram leen seen naati ñun képp ni ko soxor neen bu fàtte saa ay xadiman muxtaari la tansa saxabahu faman yasum kon matu matu mu xatam nee na loolu moo soog mu ne koy si naa Babacar Sidiq أبو بكر الصديق سودة والوفاء ربيع النبي مصطفى غار أنبو نسيت عمر من تب ويا من مكبو من أبو حسن الفاروق شرواه نادم به تسديد المصطفى يسحو أبي سعد من داعى من عفان الصحيا له النور ثم النور نعم البغي أبو ستة مختار وكم نعمي عن على خير من الجماعة لأن يوري يكتب يوري جسد جواي سنتوا تعمل mooy Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali sëñ Tuubaa nee na ma boole waat leen ne ci mel ni béy laa si yemal xulafaahu Sidiquma Omarin Ousmane Waani nin mu la dër ñoom ñu daan yëkkati dañoo doon def sëñ Tuubaa nee na sama bay wër ko bi naa mu tàmm leen bu leen naa leen asxaaba rasulullah ñu wër du tekkal sëñ Tuubaa si daan indi xaddi ko mooy bëri la ko fi nekk ba daw yëg yow commencé jaar ak saxaaba yi yonent bi kan dem ci yàlla bi du jeex moo tax suñu tubaab mos naa toog njëriñ ba yàgg dañ ne li li nga wax moos li yonent bi yoroon lépp dama ko moos. am na mbir bu ñuy wax yéen li ma leen faal daa ñaan suñu tubaab dem ci njëriñ ñëw ànd ak ab ab ab ab ab ab ab déwénal bi mu ñëwee ñu yor suñ bi dama suñ bi ne ko ki nga àndal ko moom mu ne ko sax déwénal. mooy kaw li loolu mu ne ko fu ma dem taxawu ñu ma mooy tax ñu xam ne suñu suñu yow am na lu muy def. yéen ñu waaj a dugal yéen a jóg waaj a jóg di tagg yéen di naan ko sama nangam yéen a nangam yéen a nangam ba yéen a dara dara ji yéen mu tàmbali di ko jox. di ko jox di ko jox ba jeexal ba gis ñu dugub suñ tubaab yi si toog a ko nopp mu doon ni teg sëñ bi di ko xool rek ko yéen ñu ko naan mu ne ko ndax fii nga aw sa waa ji fu ko raw laa aw rek ko ba li nga doon lépp mu jox sëñ tubaab nee na maa ngi woo seen bi ba mu jeexal tàgg mu ne ma kaan dem ci suñu nee na keroog dina jàkkaarloo saa borom yéen bi laajte islam dañuy yor dañu suñu borom dama bëgg nga seeral ma ne Ahmadou Khadim ñii moo ma gën a faaw yàlla na ko def mun ko defal na ma loo xam ne kenn mësu ma ko def nee na keroog suñu tubaab wax na suñu tubaab nee na keroog yàlla dañu yéen di laajte islam yow kat lu ma sàkk yaa ci gën waaye lu ma sàkk suñu tubaab ci gënal gën ak gënal la ci bokk lu ma sàkk yaa ci gën waaye lu ma sàkk suñu tubaab ci gënal dañ suñu tubaab wax loo bëgg ma defal la suñu tubaab ne ko dàggee ma sam xel boobu si xel bu góor yàlla boo ma si bind suñu borom la ko defal naa nee na fi may xalaat xalaatee rek loolu mooy yi ma yaakaar yëpp di jàll ci sama kanam te ci doo bi roo yi ma yaakaar te mbir mi di jàll sama kanam yu rek roo yi ma yaakaar te fàtte di jàll sama kanam man ni saa borom ñii loolu bu ba léegi ma xam ku ma yaakaar ne ak yéen saa borom ko defal naa waxaat nee na ma yaakaar ne keneen yam lii ñu wax baat rek baat rek surtout baat nee na keroog yàlla dafa doon baat rek ci misaal ndax yàlla dañu ko defal naa la moom ba doon ko ne ko may naa la indi surtout baat bi des xalimaam ni ma nekk nii jur yaa yàlla ko boole ci laa bidduwaan yi malaka ni dunya wa uxraa suñu borom ni ko may naa la àddina ak alaaxira may naa la muy liggéey jël simaamul wara asmi bedda lay fii yëpp mu noonu góor naa di jëm saa di xeex may yaakaar ni jëla saa borom di wax suñu borom ni ma amul man ko màgg man ma toog ak saawee lu may jëfati danaa la tàgg bu la soobee ma def bu la suuf ma bàyyi yow nag loolu soo ma ci defal ikram te nii ikraama man noo soofa ëpp lu ma aratu yàlla di suñu borom daa far ne ko sonn naa ci détail bi détail bi dama la doon jox benn par benn waaye ëmb bi foog naa la jox lépp am tay te nii jamia duuna salam naa la lépp dëkk moo am. kon suñ tubaab moom lépp lépp nag nekk moo tax murid yi lu ne nga di gis murid yi lépp a ngi ci léeg-léeg ne lu ne lu ne mu ngi jaaxal suñ tubaab daa moom lépp moo tax lépp a ngi ci. moo tax dañu xam ni yàlla li mu baax a Sëñ Tuubaa fi nekk kon. waaw Sénégal nag daa bëri naa fekk moo wax saa su nekk moo koy wax. Sénégal daa bëri naa fekk gis nga Sëñ Tuubaa fu nekkoon ak Ivoirien wala mu dëkk Gànnaar nga Sénégalais yi ñu dëkk baax di ko fekk. te pourtant ñu nekk ci réew mi Sëñ Tuubaa gore ji mu gore moo tax moo leen tariixa yi nga gis ñu nekk ci réew mi te ay séeréer de pourcentage nekk bi séeréer de Sëñ Tuubaa kenn du xaalis ba Sëñ Tuubaa nekk na juróom-ñetti at ba si Abdou Khadir Gueye laa ne ko jox naa la ci ndigal yow Ahmadou Khadim jox naa la ndigal ngay joxe wér di jox naa la ndigal nga téye ko lu la ci soxla seen nga boole. rajo yi am nañu surtout Gueye laa ne ndax la jëloon wàllu na si am leen moo tax ñu daan jéggulu ba noppi Sëñ Tuubaa ni ko loo yoroon mën ko wér di xaalis Sëñ Tuubaa ni ko ba naa laaj moom jox naa la ci ndigal baax ndigal nee na wér du wér du Tijaan yi juróom-ñetti at la ba si Ahmadou gërëm ko radiya anni surtout tijaani alayhi ridwaan bi di jeex nee na Cheikh Ahmad Tidiane Sëriñ gërëm ko moo tax suñu baax nit daan ñëw jëkkuli ci moom mu bàyyi la gërëm Tidiane radiya anni xulafaa al arbaa usril al muxarrabin al mutbaa nee na mboolem xulafaa al arbaa yëpp maa si gërëm ma Cheikh Madi ki ñëpp doon wër ngërëmam it muy muy muy muy yan classe islam ngërëm li ko ngërëm moom kenn dootu am ma woon na annahu yakunu abada murdihi billasi ka xidmati bada sitwa nee na ngërëm li ma yërëm ci di gërëm faarahu dallaalu wal idlaalu yan xaatu li mina bil xalaal ku ñor xati nag ko am ñu ñoo xam ne ne la woon ni iblis war na la waaye kenn dootu am neen ñu des jàppal ci li suñu borom nee na saa borom nag dama gërëm ngërëm loo xam ne junni lay la invité ñëpp wër ma suñ tubaab nee na saa borom sànni ma mel ni jant rafaani rafet waa rafam xabada man saa wër ba xam ne fan xabada yàlla jokkal ma di ma sant. shakartani ayna jami jundika yaa xëy na jaaree fan la kat tooñ la moo tax ma wax ko jawee woon ni ko thank you sukran merci ak jaaraama juukum dara ki ñu te nee leen ñaw boolem xeeti jant yi suñ tubaab ku ku ku ku ñuy sant keneen te jaaree suñ tubaab dañ jox nit ku sëriñ nañ jox lépp seen tubaab lépp seen tubaab moom. ginnaaw nag seen tubaab nee na ñii gërëm nañ ko ñi baax ñëpp gërëm nañ ko benn suñu borom gërëm ko keneen ko woon ginnaaw yi seen tubaab nee na. loolu wan ma ko man lam yekun anniya yarda fal karim radiya anniya dañ lay seede képp ku ma woon ginnaaw lii ma am rek doy na ma Cheikh Xadi da doy na sëkk na kon ginnaaw suñu tubaab nag surtout ma tàngi doo nga doon li ngay faral di wax ne ku yàlla def ma nga bañ suñu tubaab booy boo nga jox erreur ci armée bi ak suñu sànni ku yàlla def ma nga bañ suñu tubaab moom booy boo nga joxe RW ca armeel ya ndax bañ Sëriñ Tuubaa rek doy na feebar. billahi bañ Sëriñ na feebar fi ne am na feebar boo xam ni ñu bëri daawuñu ko dégg muy cancer waaye léegi daa ñun dal nag moo ñu bañ Sëriñ Tuubaa parce que boo bañee Sëriñ Tuubaa doo ko xam nga li a dansé mooy génne ndax ku gisee moom dañ lay dañ lay sa xol muy màgg mooy dem bu jural la cancer billahi te yii ci yi may faral di wax seet boo bañ a suñu tubaab yi xorom doo ko am loo xool loo wax lu mu xorom xorom kenn rek sa xorom la suñu tubaab yi sax di dund. jotaay boo jublu dañuy jóg dem bala bindee bi boo bañ a suñu tubaab def nee ne kenn laay def yooyu moom wax suñu tubaab seet bu neex it doo ko def xam nga sëñ Moussa Ka ak sëñ Bay Jax ñu ñëw di ay way kenn kenn ko àndul ak moom dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëdd Bamba kenn des ni ko ko àndul ak moom dama dëkk mbuum tey mbuum ci mbuum tey ñeent Bamba boo tax koo def suñu tubaab mbuum rek ginaar yeeg yu baax yooyu moom ñoo ci am loolu la doon nag boo bëggee mooy. boo yéegee da ngay daan ku la tooñ dëgg ma teew koo tooñu duma koo lekk mu bañ teew doyoon nañu léegi nag sax promotion am message bi boo koy soxla day fekk mu jeexee boo jëlee doom tous barki seen sel commencé na ngay jënd jaay moom jënduñ la jaay nga tooñ sa biir di métti ñu yóbbu la hôpital garab bi ñu la bindal pharmacie boo dem lay tëj si tubaab ko waxee xuloo bu man lam yo xibbu ne alaama seen boo laaj laa ko na maaraamu wala a ba denc bi boo demee pharmacie boo mën di dem day tëj nga laajte sax pharmacie waaye garde kenn kenn la ko wax. nga mujj nag ñu ne jéem a xeetu la wala ku laa ko da nga di dem sama la yal nañu yàlla musal kon nag nañu nañu jël suñu xol yi bëgg ci Serigne Touba nañu jël suñu lépp jox ko Serigne Touba Serigne Touba wàccoon naa ñoom ñu ñoo ci des. Serigne Touba wàccoon naa ñoom ñu ñoo ci des. liñ ko war a njëkkee nag mooy. xam ne li am moom la ma ko sëñ Issa Diène rek sëñ Issa Diène day daajal Sëriñ Tuubaa am baraag ci njëriñ mais gis Sëriñ Tuubaa ni dënn génn Cheikh Issa wëlba di ko gis Sëriñ Tuubaa mu xool xool Sëriñ Tuubaa ni mu neexee jàkkaarloo jëm Sëriñ Tuubaa ni mu neexee tax Sëriñ Issa mi ngi tàkkaanam day dund ni koy naan dara ji sot béy bi àll ko mu yóbbu ñu jël ci gërëm Sëriñ Tuubaa ah, dafa ak a neexoon yàlla jox mu addinaa ngi ci biir Sëriñ Tuubaa ni ko ah, Issa nga dugg ci ram ko xanaa sakkee na ko Sëriñ Tuubaa ni ko taxul ngeen def suñu saa yu teg da koy métti comme ni nga def ko da ngeen di yëg ni naan day tëj xool dañu yëg ni loo am sëñ Tuubaa. waaw waaw dañu yëg ni loo am sëñ Tuubaa dañu yëg ni lu xew sëñ Tuubaa di di sëñ Tuubaa gaa yi dañu gën a sëñ Tuubaa. ok jërëjëf sëriñ Cheikhouna dama bëgg yéen murid yi fi nekk képp ku yëg ni sëriñ Tuubaa nga fekk fii sëriñ Cheikhouna jox addiya sëriñ Tuubaa ñun yëg ni sëriñ Tuubaa la wax. ki bopp maam Thierno dañu ko Thierno. a jooyloo neexiinu baatu ñuy jàng wala déggiinu araabu ci bind bind bi moo la daaneel maam Thierno ne teg sëriñ bi dellu ko baam maam Thierno ne teg sëriñ bi dellu ko baam ni ko neexiinu baatu ñuy jàng wala déggiinu araabu ci bind bind bi moo la daaneel maam Thierno ne teg si tuwaa ni ko Thierno mu ne ko Mbacke mu ne ko faa doon waxee lii kuñ fa yóbboon ku sa waa ji boo waxee ko ko jëlee la yow kon sëñ Tuubaa comme doon waxee xas léegi fi la wóor nga tal na leen lu ñu wax kon xas léegi nañ ci mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa li mu am lépp li mu am lépp kon nag nañu jàng xas léegi te jublu ci liggéey sëñ Tuubaa waaye nañu jàng xas léegi ngir yàlla képp dama cee boole dara dama cee boole dara dara dara dara ndax xas léegi leen ñaanal fan bu gudd ànd ak wér ak te xale yi wax dëgg yàlla xale yu baax lanu xale yu yaru lanu déggal nañu seeni waajur tamit nu liggéey liggéeyal sëñ tamit wax dëgg yàlla ci loolu leen xam xamuñu leen ci lenn lu dul liggéeyal sëñ Touba rek waaw daayira dem daayira jàng. màggal di am contentement ci bis bi euh, bis boo xam ne si ñu ngi koy def at mu nekk te def gi defuñu ko ci suñ coobare dañ cee am ndigal ndigal bi jógee ci kilifa gu tedd muy Seex Saaliw Mbàkke yal nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram bis bi ñu koy daan def ñetti fan yi tam xarit yàlla def bi passé daje ak nawet bi ñu indi ko ba bis boo xam ne siñ Saaliw moo ko tànnaloon boppam ndigal lu jóge ci siñ Seex Saaliw muy benn fanu Kazu Rajab ñu ci sant yàlla bu baax nag di ci ñaanal Serigne Saliou yàlla yokk leeram taas ni si barkeem ndax lii dafa jafe ndaxte ay ndaw lañ na noonu nekk tey di def leneen mais bu nu amee xelu toog di sant Serigne Saliou kon kooku amuñu fayam te Serigne Saliou ku nekk xam nga ne ni meloon si ndaw ñi ndaw ñi rek moo ko ñoroon diine rek moo ko ñoroon lislaam rek moo ko ñoroon kon bu ñu yàlla baaxee ban fekk ay jamonoom ba tey ñu mën a toog di ko sargal di ko màggal loolu dañ sant suñuy waajur ndax ñoo ñu ci jàppale gis ngeen waañ bi ni mu demee yàq nan añ yi servi nañ def yëpp te yëpp maire ñoo ci jàpp bu nekkutoon ak ñoom dara du baax dañ leen di sant di leen gërëm di sant suñuy jëwrin ku ci mel ne soxna Maane soxna Silla maam góor ñoom gañ ndax ñoom ñëpp danoo jël lépp takk suñu loxo. li ma ne yoonu sëñ moom amul tànk ginnaaw kanam rek waa at mu jot moom dañuy gis lu gën a yees suñ xol daan na guy ndax gis nañ taxawaay bi ak Pastef waa taxa gis nañ yokkute bi it. noo ngi santaat bu baax Serigne Touba mi ngi xëy si Euh, moom lañuy ñuy liggéeyal jaaree ko ci sabab bi Seexuna Sëriñ Saliou Mbacke mi ngi xëy si moom la ndaw ñëpp sagoo euh, noo ngi sant bu baax ci bis bi nga xay si moom lañ doon def depuis ci suba ba léegi muy bis boo xay si nag ku ko gis xam ne bis bu baati ne la bis bu amul yëg koo cant muy li ñu yendoo euh, jële ko ci ndigal nag defe ko ndigal ci ndigal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu joxoon ni ci ñetti bis muy benn fanu rajab niki tey ak ñetti fani tamxarit ak bisub gàmmu ku ne xam na ni ràññee woon nañ ko ci ñetti fani tamxarit waaye nag biñ dolee ci ñetti fani tamxarit yi dafa mel ni gox bi ñu nekk ndox mi xawoon na coo doy waar lool ba tax nu jàll si woon ko ci ba ci bis bii kon gis ngeen noonu nu fi yendoo yëpp bin xëyee wàcce nañ kaamil euh, daara ji fi teew di daaray sëriñ Jili Mbay def na wàcce kaamil bi bi pare gis ngeen durus boobu ñu ñu fi amal ay xasida yu bari ci jànkar yi fi teewit na ngeen ci ku mel ni sëriñ Bolle Mbay sëriñ Abdoulahat ture sëriñ euh, Abdoulahat Kundung sëriñ euh, Jili Dramé ak sëriñ Muntaxa Gueye mi ngi xëy si daanaka moom magum taalibe la ci saabu bu ci jotaay bi daf nuy soññaat di ñu jaajal euh, di ñu di ñu di mayaat fit ci lu nekk kon loolu lañ fi yendoo euh, ca euh, ku ne gis na ko bu baax a baax a baax ñu amaan mbégte bu baax ci yëkkatiwaat suñuy kàddu jëmale ko ci ngërëm ak cant ak soññee ca xam ne nit bu amee loo xam ne si bari na ñu koy bëgg ci amuñu ko da koy tëy da koy tëye bu dëgër te bañ ko yemaleek dara ndax li tax mooy dayra bi bu ñuy xool ci jëmmi mbooloo mën na néew ci bët waaye bu dee ci li ko téye ci suuf kenn duñ ko ëppale mbooloo mi nag du caage ni euh, day day doon ay nit yoo xay si dañuy dajaloo fu ñu jaar di rëyrandoo waaye mbooloo mi xool la ak yëg-yëg ak ngëm-ngëm te loolu lañ am euh, li ma waxoon rek lay waxaat nun li ñuy def sëriñ bee tax moo tax tey saa buñ ko defee rek dañ dañ moo daq déwén te li may wax suuf suur loolu dañ ci noppi murit yëpp mooy maanaam doomu aadama li muy def ca saa bu ñëwee du ci am mu yokkute na seetaat boppam ca xam ne la muy def sëriñ bi taxut sëriñ Touba moom ku ne xam na ne tayam ji ne gàccal na démbam kon nun heure bu ñu defee ba pare naa daaw daaw a rek bay boo ñu xoolaat suñ bopp baax xoolal xoolaan lu ñuy def kon nañ ci bàyyi xel bu baax gën a góorgóorluwaat gën a pësteefuwaat gën a bàyyiwaat xel ci lañuy def bu baax a baax a baax ca comme noonu ko sëñ dan waxe léegi ci biir waxtaanam defe naa déglu ngeen ko mu ne bit bis bi baati ne na li waral baatin nag nag mooy jàngkat yi nga xay ñoo jàngal sëriñ si ñoo nga xay si ñoom la ñoom ñoo mën a jàng sëriñ bi di leen déglu ñoom ñëpp teew nañ ci bis bi waaw lu waxoon nañ ko léegi ku mel ni sëriñ Bolle Mbaye ku xam na ni ay kilifa koy rang ngir mu leen di jàngal ku mel ni sëriñ Abdoulaye Touré noonu sëriñ Abdoulaye Koundung moom tey lay soog ren lay soog a ñëw waaye nag nee na rëccu na lim doon yéex a see te yàlla xam na ni barki démb barki démb laay soog a dem këram. see bu ñu am wala nu ñu doxee rek seen waajur yu jigéen moo moo moo ko def ci ñoom kon yaakaar naa yi sa wër ju yóor wër ju yóor nañ santaat bu baax a baax am na ay tuut tànk yoo xam ne boo leen xool ñu ngi toll ci ay juróom-ñetti at wala fukki at jëm kaw ñooñu lu ñu def seen way jur a tax kon way jur yet jar nañu santaat leen bu baax gërëmat laal bu baax a baax a baax sama wax nag moom li may wax rek dayre bi ko xay da ngaa jóg ngir jébbale ji wala ngirum kii moom ban ngaa dem lafu ji ne dem bokk benn dayre jébbale bi mooy jàkka ji jébbale bi mooy jàkka ji mooy suñu yitte ndax ñoo dem ba ki ñu war a jébbal xaalis ne ko noonu kat am na jàkk sàngam boo xam nii ak nii nii ak nal mal mu ni lu ngeen fa war a defee lu ngeen war a indee te defal leen ma ko fa ñu koy def ba noppi koo gis dellu ci ka ko fi toogal wax ko loolu mu wal dukaan ni defal ko li suñu aas wax yéen a ko déggandoo kon loolu lépp day wér ni euh, mbir moom euh, tepp tepp teq tepp topp topp moo gën yuréet maanaam par exemple ndox mi nga xay si mi ngi dal ndànk ndànk ndànk danga dem ba suuf si tooy xëpp moo gën taw bu ni yuréet fépp taaca boo lambee ba ci biir mu daj la woow kon nañ amuk dal amuk teg ca xam ni lu baax yombut koo xay si am nga loo kenn amut da nga koy jàppee ni ko kenn jàppewut waaw loolu daal moom laa leen di waxaat di leen soññaat bu di gërëm bu baax eh, waa sit bi nga xay si ñoo fi teew di 24actu point com donc leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ndax eh, ku ne xam na ni ci bëccëg metti na lool tàng na. Euh, ca coono yi bari na loolu waaye teewut fu ñu leen woo wala ruq bu ñu leen dugal yéen a nga fay dugal di jël li euh, lépp lépp rek ngir siwal ko wane ko mbokki bi yi nga xëy ñu ngi ci bitim réew ca bokk ci liggéey bi kon looloo ñu ngi ci sant bu baax dinañ ci gërëm te ñaan yàlla seen sit bii bokk ci site yi nga xay si mooy gën a kawe ba pare amaat ngërëmal sëriñ bi ndax bari na site yoo xay si ni ngi dox ca la ñuy wane ak la ñuy wakki dara loo xay si mën naa jubal gone nekku ca waaw